Euh, ziar ñëpp ak euh, feddali kóllëre gi ñu fi am ak mbokk yi ñu fi am euh, absence Baye Alla nag wax dëgg yàlla remarqué nañ ko parce que man mii bi may julli ndax dafa am nu meloon ci ci man man bi may julli moom moo nekkoon sama sama sama xel ci xutba bi moo nekkoon sama xel te bi julli gi yëpp muy ñëw moom moom laa doon xalaat donc mënuñu lu dul actuellement nii euh, ñaanal ko euh, di ñaan yàlla yàlla xare ko àjjana fa mu ne suuf oyof ci kawam euh, yàlla jéggal ko ay ay bàkkaaram ak bépp mbokk jullit bu mu fa fekk rek yàlla yàlla jéggal ko. man soññee ngay am ci jeunesse bi ci fi ñu toll nga xamante ni réew mi xawoon naa yëngu. Mhm. ak taxawaayu ndaw yi en tant que jeune. waaw jeune damay dellu di ñaax euh, suñu jeunesse bi di leen wax ni leen euh, que euh, waratuñoo nangu tey kenn ñëw di leen dugal ci loo nga xamante ni du jëmale réew mi kanam wala day yàq réew mi di leen wax ni fépp fu waay mën a ne ak fu nu mën a am ak fu mu mën a juddoo ak fu mu mën a bokk bu góor góorgóorloo rek yàlla dina ko dina ko jàppale dina ko euh, dimbali ba li mu bëgg a def ci àddunaam rek mu mu def ko le seul secret bi am moom mooy liggéey ak euh, jaamu yàlla loolu moom moo fi nekk donc képp ku ci liggéey yàlla dina la jàppale. jërëjëf jërëjëf mu doonoon euh, ki nga xamante ne mooy Ndiol Diouf di doom ci Baye El Hadj Mbaye Gueye AMG mi nga xam ni gis ngeen taxawaayam ci jumaa ji nga xam ne fi lañ jullee léegi ñu dem ndax góor gaa ngi génn ak fi nga xam ne fi la ñuy lewet la xar ñu mën ko jël